bokk yi ñoo ngi leen nuyu fi ñu leen daan nuyoo saa su nekk andi leen lenn li gën a fës ci wàllu fait divers ci semaine bi ci yenn xëtu yëglekaay yi tey di àllarba 9 octobre ñu tàmbali li gën a xew Aïcha Camara jigéen la sénégalaise la moo ngi fekk ki nga xam ni mooy président bi fi nekkoon di président Macky Sall ci avion ginnaaw bi mu toogee ak soxnaam. ñiini ni moo ngi woon ci portable am moom président Macky Sall ñii ni moo ngi woon di liir ki nga xam ni mooy première dame bi fi nekkoon di Marème fay sàll nekkoon ci kurusam bari nañu fa fekkoon président Macky sàll ak première dame Marème fay sàll nuyoo dem toog bi mu ñëwee lim ko wax yaa rey suñu njaboot yaa muucu suñu deretu askan yaa yàq réew mi ci ay kàddu yoo xam ni siiw na lool ñu wax ni ci la Mariam Faye Sall jug xamal ko li nga wax dafa ëpp moom it na ndaw sa waxee mu tontoo ko coow loolu nag bari ci avion bi ba mujj commandant de bord bi moo ñëw alerte gendarme yi ñu jël ko moom ndaw si téye ko ba vol boobu mujj caa dem vol bi dem loolu nag bi mu amee ki nga xam ni mooy ministre des affaires étrangères bu Sénégal am communiqué bu mu génn génne googu mu ko génne nag di wa taxaw ak di yiir mooy suñu mbokku sénégalais boobu tudd Aïssa Camara ci li mu def ak lu tax gendarme yi nga xam ne ñoo nekk fële ci Maroc téye ko dañuy taxaw seetlu ci loolu am na yenn information yu wax ni bi ñu wëree information bi li leen première dame bi fi nekkoon wax di Marème fay Sall du ma nangu góor sax jël ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci sama boroom kër asumaan jigéen ni man bi ñu laajee tamit njiitu réew mi fi nekkoon di président Macky Sall ndax dangay ngay dafa wax ni du plainte bàyyi naa dossier bi ak yéen loo leen ci def ànd naa ci li Aïssa Camara def lu mu doon ndax jaadu na ndax jaaduwul mu am ñu ci ànd di ko tàccu te naan ndaw si guerrière la patriote la am ñeneen ñoo xam ni ànduñu ci ndax worma gi Macky Sall la am dañ ko ko war a jox man ma taxaw si def ci taxawu seetlu mooy réew mi dañoo mën a toppandoo tey Aïssa moo def suba kan mooy def ku ne ànd naa ci àndoo ci yoo lu dul yoon bu dee moom Aïssa Camara parte tax mu def ko bu dee far moo tax mu def ko ki mu faral ëllëg na doon jomaay président Senghor nekk na fi jóge na fi Abdou nekk na jóge na fi président Abdoulaye Wade nekk na fi jóge fi Macky fi nekkoon bërki démb matagul at jóge na fi ëllëg président jomaay dafiy jóge te am na ñu ànd ak moom mais am na ñu àndut ak moom ndax ëllëg ñi àndut ak président jomaay dañoo war a fekk président jomaay ci avion bi cofaay ko ak i wax yu ñaaw du worma ku ko def jaaduwul même président Macky Sall mii tamit ku ko fekk ci avion jox ko worma bi moom amee nuyu ko te dem toog sa place boo àndul ak moom maanu ca te dem toog sa place te jàpp sa ñàpp réew mi waxuma ku yoroon drapeau Aline Cissé mi fi nekkoon entraîneur équipe nationale fuñ ko fekk dañ ko war a wormaal ndax mas naa yor drapeau Sénégal porté ko ci ay réew yu bari asumaan njiitum réew nañu dellu tuuti ci ku yorul benn nomba tànk te féete la mag ancien gendarme bi ancien commissaire bi ancien général bi ancien ministre bi ancien gouverneur bi ancien ambassadeur bi fu ñu leen fekk dañ leen a war a wormaal ndax mooy suñu valeur mooy suñu culture avion boobu am na ñeneen ñu fa nekkoon ñu dul sénégalais ndax rafet na aysa ku ci ànd ak yow la lay jay te réew moo gis ku ci génn réew yaay sa ambassadeuru famille na nga moytu di dugg ci xew ñu naan kii moo saaga woon njiitu réew mi du ndam nem xewoon na ci ay réew yu bari waaye fii suñu réew tàmm ñu koo gis nañu moytu yi xewoon fële ci diwaanu Maroc ci biir avion bi loolu lu xew la actualité la Bagdad quartier la bu nekk Thiès amoon na ku doon seetal ci ay kàddoom version bi mu njëkk a joxe fa ma doon seetalee la ay taalibe yu sëriñ xaarim loo gaydal fekk ma fa toroxal ma tas sama xew dàq ñu dóor ñu am na sax ñu ñun ci jàpp video bi Sénégal yu bari di ko seetaan te naan ndax jaadu na 24 lañ si teg taalibe sëriñ xaarim looyi génn ñoom it version bi lañ ñu jox ci kàddu njuga ma doon jëwrin ba ci bis boobu ni li andi du xew bi yu ñu daan teg ci wetu jumaa ji la ci bunt kër sëñ xaadim loo nekkin ba waxin nga musique ba du war ma ak penc mi ba ñu jëlee woon leen fa en googu moo am ci diggante xale yi ak penc dañ fay jaar ak di yu di accélérer seeni moto dañ fay jaar di yokk seeni musique ba bisu xew bi dañoo takk seeni haut-parleur jël jakataay di ko accélérer teg ko ci micro bi te kër googu ak kër sëñ Xaadim ñoo dend ba sëñ bi mujj woo préfet ñu alerte police coow loolu nag indiwoon na mu naroon na andi musiba ndax mujj xale ya sax doon nañu génn lenn ci xale yi di yuuxoo ba am police teg na ci ñaari nit loxo nañu delluwaat te yokk tuuti suñu worma suñu digganteeg suñuy kilifa Baxdaad la xewee ca diwaanu Thiès ca yoonu Taseet fan yi tamit gis nañu. fii ci kanaalu Grand Yoff bi taximaan bu doon dem gis luy mel ni nit ci la alerte police ñu alerte gendarmerie sapeur pompier ñëw ñu fexe ba génne waa ji mu mel ni lu fa yàgg ci ay fan du fa buleet ndax kanaal boobu bu ñu ni booju maan yi quinze yi fa la ñuy police Grand Yoff daan na fa def raafal ndax buuju maan la ndax quinze maan la ndax ku ñu rey sànni ko ci foofu dinañ leen toppal li nga xam ni moom moo am foofu jàkka julli suul walla sangu suul matul vingt cinq mètres ak polisu Pikine timis lañu jàpp ni ci la sàcc ba dugg ci margo ba fa ñuy denc néew yi mais waxtu géey lañ ko tëjaale ña fay jullee jàpp ni deux heures du matin jàpp trois heures du matin ci la ubbi bunt bi féeteeg mimbar bi ilimaan ba dafa jaar lu ëpp fukki ventilateur ak lu tegal mu dàjj ko dem yoonam waaye du ñu buleet ci jàkka jooju ndax mës nañoo tamit dajji jàkka ji guddi jël fa ay ventilateur ak micro yi ak yenn haut yi lal malaanu wasifa bi def ci bagage yi dem seen yoon gaa yi nag bàyyeetuñu kër nii magasin ba ci néegu yàlla lii nga xam ni moo xew ci jàkka jullee suul ba nekk ca Pikine waa jàkka ja di ko ñaawlu Pikine di ko ñaawlu Sénégal yépp di ko ñaawlu lii lañ leen àndiloon tey ki li gën a fës ci wàllu fait diweer ci semaine bi di jaajëfal bu baax a baax a baax ki nga xam ni moo réalisé émission bi monte ko moom mooy fàllu man mooy sama jinne caméraman di jaajëfal junior bi nga xam ne saa su nekk moo féete ci titre yi di leen jox dig daje semaine bii di ñëw incha allah di wax ni réew mi yàlla na yàlla def ci jàmm jàmm ak jàmm ba faaw.